jumaa ji miir armeel yi tal lamp yi ba wax ñeenti nga doon ku ni jàpp mu ni bàyyil mu dem xaadim burum nit ñi ma mën a si sëriñ ba fàlloo bu sa jëx réew mi sëriñ bu soobee càmmiñoon soxna jaara asawaaloog ndumbe daanoog daan ndumbe njang awadika kamara mariama diop sambay diop mi leer gi baawaa ne njokk ba mbàkk tal mu karam ajaroon day jaam koo àndal ala baadoola ki la waajal la waajal ku mu waajal rek nii rek lay demee la civilisation la valeur et celle de la femme xuma mu ñëw nag fii ci Sorano fekk fi kan Mohamed Niang moom Serigne Saliou Mohamed Niang mi nga xam ni at mu jot mbaa weer wu jot mu tëgg wayu bees Serigne Saliou libaas ma fàttali ba jag càmmiñal ku ma daaru ma sëtt bi tëddum baaba di ko xëri ñaay asar ku mam sëgg jeey yéeri tàkko caam ay meeri tàkko caam nga ma mbaa mbaa maa xeeboon ni nga daagoo ci tapis rouge bi dëgg si non non jàppale sama doom rek Euh, Mouhamed ñaa euh, non sama doom ji ma gunge Ndeye Thiam soxna Thiabu. Euh, Ndeye Thiam soxna Thiabu. moom mooy marraine la ci bés bi. waa d'accord alors nga daal di def nii nag ba mu baax ah daal di def nii mbay jëlal ma lii jëlal ma lii jëlal ma lii. <laughs> li ma la jël ci takku ruuj bi sax doyul ma na da ngaa sengse macha allah alors mi ngi noonu nga daal di ñëw nag gunge si ki nga xamante ne mooy sa doomu nday mu ñëw nag ci bésu Mouhamed ñaa bi doon ci marraine nga doon xaritam daal di koy gunge waaw daal di gunge si rek sama doom sama doom la waaw ma ñëw gunge si ko rek def nii felaale xam nga ndax moom sama doom ju baax la bañalu ma dara gis nga su jógee ñëppay jóg gis nga délégation bi yëpp jóg su jógee ñëppay jóg ndax jëkkëram moo baax fu mu ñu woo rek ñu wuyu ndax ne ni ñu ngi bàyyi suñu jëkkër bàyyi suñuy doom mais fi mu ñu féete fu mu woote rek ñun ñuy jóg loolu rafet na ñu bàyyi la rek nga daal di doxal kon ba ci kanam. ci kanam merci beaucoup merci beaucoup. maa ngi lay nuyu ma maa ngi lay fay soxna su baax si. ni nga sañ sa maa maa xeeboo ko. non non xeebu ma ko benn yoon dañoo ñëw rek pour sant la si Mouhamed Niang bisu tayam bi rek waaw sant. tey euh, ngeen moo gis ne ngeen bokk ci benn délégation délégation kan la. délégation madame Guèye ren la ci bés lu ngeen nar tey nag ak seen sañse yu baax lu ngeen nar ci bés bi. Ah, ñu ñëw rek cant la ñu woote. waaw cant moom lépp la dafa ub lépp sant nañ taal. ayca kon jërëjëf. ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. waxal bu baax xam naa ne dangaa jong ba ba tayal waaye li nga sañse tamit si balaa. ah waa gis nga de ñëw rek ci Mouhamed waaw mu jël sama cousine Ndey Thiam mu bokk ci marine waaw loolu moo ñu fi indi tey ñu jóge mbuur waaw. waaw Ndey Thiam moom mooy kan. Ndey Thiam mooy euh, madame Guèye chérie ci <laughs> Bouguèye chérie ci moom la waaw. waaw dañoo gis mu ànd ak délégation bu am doole ah ànd ak ay ay ay femmes yoo xamante ne vraiment ku ci nekk da ngaa def ba mu baax daal di koy euh, gunge si. dëgg la kay dëgg la waa euh, Ndey da di Ndey mu Serigne Saliou. waaw ku xam na Mouhamed Niang Mouhamed Niang mu Serigne Saliou ah, du jóg na kër nday jaam màggalu Touba day ñëw lépp day ñëw te xam nga nit moom yëg moom yëg rek moo koy fay loolu moo tax mu def délégation ànd ak mbokkam yëpp macha allah ay xaritam ak yëpp ñun ñëw teewe si waay. nee nañu nag marraine daa bëri te ute waaye nday caam mii ah am na ñam de. koy madame Guèye koo koy madame Guèye sama sang bi dafa riche. waaw ah, mi daal bëgg naa. waaw waaw la mel dafa baax macha allah. lan ngeen nar ci bés fay. waa ñëw rek jàppale Mouhamed Niang rek waaw ñëw rek jàppale Mouhamed Niang incha allah. rafet na merci beaucoup chérie. merci beaucoup merci. la si robe princesse instant yaa ngi may saf reine des neiges. <laughs> reine des neiges nga may saf. Mbadou ci blanc lan la. waaw ah, kontaan naa merci beaucoup. fas yéene ànd ak ndey ci chéri ci borom bu pour ñëw ci Mouhamed Niang moo ñu indi. Euh, madame caam ngeen gunge si ngir mu ñëw moom it marraine la ci bés bi. waaw marraine la ci bés bi. man daal Ndeye Thiam mi daal gën naa koo bëggati daal. maa gis xale yi mu àndal xale yëpp a joom ko. waaw loolu dafa am. dëkk. Mouhamed Niang ñëw na ba foofu safar gi muy def chaque année. Mouhamed ñaa day ñëw. ni muy ñëwee di ko siggil moo tax mu ñëw. ñëwal ko ànd ak délégation cofu ko nag. ñu ànd ak moom solu ba jekk. ànd ak délégation ñëw ndax parce que bisam bi muy ambour chaque at Mouhamed ñaa du ko coof moo tax mu ñëwal ko ak délégation ah, kon loolu rafet na tey lan ngeen nar nag ci bis ah xanaa fas yéene jàppale Mouhamed Niang cantale ko ba mu neex cantale ko ba mu neex ko Serigne Saliou comme dana ñu cant Serigne saali ñu cantale ko Serigne Saliou ndax madame Guèye mi ñu àndal taalibe Serigne Saliou la doxul ci lu dul sant Serigne saali kon nañ ko àndale sant Serigne saali du noonu kon ñu bàyyi def nii waaw gis nga ana madame Guèye kan moo mbay mbay jëlal ma sañse madame Guèye madame Guèye di marraine ci bés bi jëlal ma sañse bi waaw madame Guèye li nga sañse tamit lan la ñëw jàppale ci Mouhamed Niang mu marraine la bés bi nga daal di ñëw nag cofoo ko nag macha allah. tuddee naa la sañse bi maa leen ñëpp di nuyu sama délégation bi ma àndal ñu jóge ba Mbuur topp ma. mënuma leen a say di nuyu sama alaaji bu baax bi muy alaaji ci bu Gueye euh, di euh, sant bu baax nag di sant bu baax ba ma yàlla booleek moom na tey jii ne fu ma dem moom la lu ma am moom la ku ma xam moom la. jëkkër ju baax jëla boot te sa dara langul. waaw looloo am. waaw mais madame Guèye nga daal di ñëw def sa délégation ànd ak ay xale yu mel ni ne bonbon tàngal macha allah nga ñëw nag daal di wuy si ki nga xamante ne mooy Mouhamed ñaa ci bés bi euh, mu def la ci marraine. waa di di di delloowaat wax ji rek ndax lépp rek alaaju ci buggay la moo xamanteeg Mouhamed ñaa xamante bu rafet ba tey jii ni lii am suñu diggante mu marraine ma ko kon lépp rek alaaju ci buggay la mhm. ah, tey nag lan nga nar ci bés bi nga xamante ne nag Mouhamed Niang daal dina la koy ne ba noppi daal di koy def nag sargal euh, Cheikh Amar mi nga xamante ne ku ne xam na euh, ni mu mel ak ki nga xamante ne mooy Mouhamed Niang. naa kontaan rek li des nag moom top leen ma ci biir incha allah. lépp fa lañ koy matalee. mais naka nga gisee initiative bi sargal Cheikh Amar ndax ku ne xam na ne Cheikh Amar euh, depuis bi mu feebaree gëjoon nañ ko dégg si ay mbir euh, naka naka naka nga gisee sargal bi ko. xanaa rafet rek yëngal képp kuy deretu Serigne Saliou ndax ñun ñëpp suñu deret Serigne Saliou wàcc ne kon Cheikh Amar tey su toogee ay at kenn dégg ko mu feebaroo ñu koy ñaan yàlla yàlla gën a woyofal yaramam mu koy sargal dafa def lu rafet lii mooy nit doo bàyyi ba mu dem nga di ko sargal danga koy sargal si kaw ba muy dund yàlla na fi yàlla yàggal ko lool nag yàggal mbooloo mu jullit si barke alxuraan Mouhamed Niang yàgg ko di ko teewe di ko yàgg def si barke alxuraan. jërëjëf ñu bàyyi la kon nga daal di doxal ba ci kanam. jërëjëf merci beaucoup merci. umu ñu ngi lay nuyu kon nag mbay ñu ngi taxaw ak euh, borom tiktok bi xale bi nga xamante ne moo lëmbe tiktok bi gis nga ko tey moo ñëw fii nag ak café gu doy waar wax ñu sax turu café gi ba pare umu café bi mu ngi euh, maa ngi leen di nuyu ñëpp sama xarit bu baax bu rafet bi kafe <laughs> bi Torobika la euh, Torobika la tudd 129 euh, pays ñoo ko am mu nekk instant bi bu bees ci Sénégal ñu ñoo ko fi am sachet bi fee lay def bi bu am sucre bi la am na non sucré mu ngi nii am nañ tamit ay biscuit yuñ ciy def ak bi santati business ñoo ko fi indi ñoo koy jaay paquet bi 20 lay def di jaar 5000 francs biscuit yi tamit di jaar 7500 dafa baax ci teint day defar sa teint comme man gis ngeen sama teint bi. li tey au lait <laughs> day defar teint day defar tamit sa forme comprendre nga sa peau daal da dalay dalay beesal ba nga bees tàkk waaw ah, ñoo ko fi am yow mun a neex na. neex na moom man ñam naa ko ba ma ko ñamee ba tey damaa raakaay. ba nga ko ñamee ba tey bàyyi wool fii seetlu naa ne bëgg nga suñu place bi trop. yaa ngi jaabante naan defaral leen ma defaral yu baax yu bëri fas yéene ko yóbbaale ñeen tamit def leen comme moom ngeen ñëw ñu jaay leen café cappuccino yu baax yi. tey nag est xam ngeen ne yéen neexal euh, soirée bi tey. waaw loolu moom am na ñëpp moom ñëpp ak ñuy moom tëye nañ ko instant bi. sant tey Mouhamed Niang day xaar. day xaar nee de du xaar moo ñu moo ñu fi indi <laughs> bum xaar na ànd ak ñun ñu dem rek <laughs> ok merci beaucoup kontaan naa.